Ah, salam salam salam salam les patriotes dama len di ziar di len béggee sen frère le Cheikh an tay ñu ma bëgg ñëw def ben live bu gatt rek euh ginaaw mu len nuyoo yeen ñepp ku ci nekk ak sa tur ak sa fa nga nekk ma la fay fekk na la alaykum sama gaay ma len di béggee lu bare bare bare bare di xol naka ngeen def naka naka bëccëg gi wala naka ngoon bi Sénégal xamna ñu ci ngona ah. <laughs> waa gars yi maa leen di ziar di leen bëggee dama bëgg a def benn live rek xam naa ne du gudd euh, lu jëm si attaque bi nga xam ne ñu ngi ko attaqué le président Ousmane Sonko euh, foofu si Cikki sa Mbuur euh, Cikki si nu mu tuddati yaakaar naa Cikki si Mbuur la bokk xaw ma jëm ñaajo xaw ma je ne sais pas Cikki yéen yaakaar naa xam ngeen dëkk boobu noonu ñu attaqué ko fa attaque waa APR yi attaqué sécurité président Ousmane Sonko attaqué ko moom président Ousmane Sonko. Euh, li si garaw mooy waaw euh, Mamadou Sène maa ngi lay maa ngi ziar euh, Daaru Sow maa ngi lay ziar tamit maa ngi leen di ziar sama gars yi léegi yenn saay damay liir commentaire après live bi nag mais yenn saay du may lire live bi daf may daf may kii commentaire yi dafay dafay réeral li ma bëgg a wax <laughs> mais yéen maa ngi di gis maa leen di ziar lu bëree bëree bëri bëri Moussa Ka maa ngi lay maa ngi ziar. Eh, eh, Demba maa ngi lay ziar naka mu lépp jàmm voilà maa leen di bëggee yéen ñëpp voilà maa leen di bëggee di bëggee eh, liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def patriotes yi parce que yéen tamit wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na parce que tey lu baree bari yéen a tax nit ñi jox si même bu nekkee du ngeen def ay live yéen ñu ñu war a gërëm ngeen. ñun da ngeen ñuy gërëm naan ñu ay yéen seen liggéey rafet na taxawaay bi ay jàmbaar ngeen mais yéen yéen ay jàmbaar parce que amaana tey euh, kii wax bëgg na ko koy déglu bëgg na ko koy dégg te ñun li ñuy wax yéen ngi koy jël di ko yóbbu di ko jox nit ñi nit ñi di ko di ko di ko di si di si di di xam ne lii moo xew te loolu mooy l'essentiel bi xam nga temps yee si ginnaaw dafa am ay site internet ay fi ay ay YouTube yoo xam ne dañuy signalé wante te ñoom site site site yooyu noonu yëpp ay compte yooyu yuy signalé wante de di di tëj di tëj seen i seen i seen i compte kii signale kii kii tëj compte am ma ne leen ñun yéen kenn waru signalé kenn parce que xeex bi ku si ut xaalis moom doo si yàgg léegi nag mun ngaa ubbi sa compte YouTube di jël vidéo gars yi di ko partagé ñun message bi lañ bëgg muy jàll te loolu yéen la message bi bu jàllee rek loolu moo am solo man aw ma compte YouTube YouTube fayu dara parce que ñëw ma si xeex bi pour fay yàlla teral na ma bu yàgg ñëw aw ma compte bu may fayeeku benn dërëm si xeex bi ak ñeneen ñu bari léegi pour quoi yéen ngeen nekk ay patriot am ay compte YouTube di fa fayeeku xaalis di fa dugal ay video di monter yéen ngeen di signaler ñuy couper seen i ñuy couper seen i seen i scène parce que ñun ñun ñëpp benn xeex la ñuy xeex mooy senegal am ndam télé yi jàmm nañ ñu journaux yi jàmm nañ ñu gaa ñoom duñu wax dëgg dañuy si ay tappale lañuy dox waaye yéen bu ngeen signalé wante ñu ñu ñu ñu tëj seen compte YouTube yi ak seen compte Facebook yi est-ce que kon information bi dana jàllati te message bi di jàll rek la ñu soxla si fépp nag lu président Ousmane Sonko wax ñëpp jot si lu keneen wax ñëpp jot si kon euh, yéen ñu ngi leen di béggee bu baax a baax voilà Cheikh Ndiaye maa ngi lay ziar yow tamit yéen ñëpp voilà macha allah na ñëpp waaw focus 2024 incha allahu rabbi ma ñëw na commencé li ma bëgg a wax dama leen di béggee rek parce que toujours damay bëgg commencé si yéen ñi nga xam yéen a ngi suivre live bi mais ma leen di bëggee yeen ñëpp namu naa leen ma leen di bëggee lu bare bare bare bare bare waaw na seen groupe whatsapp yi bari na seen compte youtube yi bari na seen compte facebook facebook yi bari ngeen di partager information yi bu leen faalé ben journaliste bo xamanteni day tapalé loolu moy wax ci loolu moy l'essentiel ñëpp information bi di jall loolu rek lañu soxla ñun ñu ci mbir mi dara lu Sénégal bu ko voilà légui nak li tax mu bëgg def live bi moy attaque gaay yi nga xam ñoo attaquer le président Ousmane Sonko démb foofu sa sa sa sa ciki attaqué cortège président Ousmane Sonko loolu weesu na ak rep rep mënta weesu loolu léegi nag ñu yor média boo xam ne ak i journalistes yoo xam ne Ousmane Sonko moo tax ñuy dund te nañ ñaan yàlla nag ñoom Ousmane Sonko di dund parce que Ousmane Sonko bu dundul ñoom dootuñu dund parce que chaque jour yàkkante nañ dara xew ñu génn wax ay fen euh, détourné wax ji wax leneen Ousmane Sonko dem di def mitinam and ak ay kilifa ay imam ak i sëriñ ñu dem kar kar cortège bi dugg ci biir xoo ci biir ño xamne ne ñu juroom wala juroom ben nit nga fekk junne nit di dox nga dugg seen biir nan ko nan di di di saga di saga euh, euh, sécurité bi di saga Ousmane Sonko ba jotti ci Ousmane Sonko xam ne ñooñu sori nañ de Ousmane Sonko liko ko wër ci sécurité nga romb ñëpp ba jotti Ousmane Sonko nga romb ñooñu ñëpp ba yegg ci Ousmane Sonko. ñooñu dañoo am sens mais seen bakkan lañ doon ñàkk mais xam nga muñ dafa am muñ fu muy yem man nag dama doon wax ne da man li ma doon dama ne mbaa ñi sa dee bari nañ laa wax man man loolu laa njëkk xalaat mbaa rey nañ ña doon def loolu mbaa rey nañ leen man loolu laa xalaat parce que ñoom dañoo rey si ñun ay nit yu dul jeex parce que euh, côté euh, Doudou Ka dafa attaqué keroog euh, sa Ziguinchor la dem fekk yow Ziguinchor nga dafa attaqué Ousmane Sonko loolu lu ko gën a nekk xaru amut ba ciow lolou mo yobbu ay bakan yu bok ci sécurité président Ousmane Sonko ak ay caméra maanaam Mariama Sagna dañ ko fekk keur Massar ray ko ray bu ñaaw bo xamne ba tay mujjulu fenn fen motax ñun nak fu mu toll dafa jot manam di bayyi nit ñi ñuy xuus ba yegg ci président Ousmane Sonko léegi sécurité ñoñu tay buñu jëlon ab xeer dóor ko Ousmane Sonko ci bop lan moy wax ji ñun fi lañu toore ñun patriote nan di jox patriote di glace nan ay dal leen nañ dal nañ dal nañ dal ba kañ Sonko dafay waxte li limi wax ñu koy dégg nee ñi wara wax waxuñu te ñu ngi gis lépp ki door téyewuñ loxom tok fee nan Sonko nitu fina la patriote nitu fina la motax ma ngi dégg ma ngi tay ma Matar ma Matar ba euh, Matar gay Jamra man dama bokk Jamra élément Jamra la bokk na ci Jamra ma respecté ko torop nak. gis liggéey bi nga xam def nako mom si mois de mars bi bi bi bi gars yi bi bi muy dem kër président Ousmane Sonko ma rafetlu ko trop mais Mame Makhtar gars yi ñu ngi koy bëgg dugal si si game boo xam ne moom xajul foofu te foofu du place parce que moom société civile la bokk Jamra maanaam koo xam ne farul fenn dafa am problème yoo xam ne man si laa koy sax xaar ay jubale Sonko ak Macky su Sonko ak Macky mu suñu am problème Macky moo am problème ak Sonko Sonko moo ñëw laaj li ñëpp bokk pour ñëpp jot si Macky ne ko yow doo jot si li ñëpp bokk ñëpp jot si li ngay taxawee da ngay féetee ne ñun ñu ñun ñi nga xam matuñu quinze trente personnes seddoo mbiru Sénégal loolu mooy problème mu Sonko ak Macky Macky dafa bëgg a mbiru Sénégal comme ni mu koy defee Sonko ne lu ñëpp bokk ñëpp jot si ñaar ñun duñ mën a juboo juboo gi lenn mooy mën a am Macky fekk Sonko si li mu wax ne ko waa léegi d'accord naa li ñëpp bokk ñëpp jot si mais Mame Matar Gueye Jamra bu demee maanaam maanaam maanaam yow li nga nekk da nga si jot ay attaques lu normal la moo xam ñuy wooye seen bopp ay patriote attaqué la wala ñeneen ak ñeneen mais bul ñëw rek indi game bi bëgg a xeex ak ñun ñun xeexuñu ak yow jamra boo fa demee man maa ngi jamra li la fa nekk si ay patriote nekkul fa ak si yeneen parti politique nga xam ne patriotisme bi ñuy dund mooy bëgg sa réew kon Mame Matar bul ñu tontuwante bul tontuwante ak ñun patriote yi bul dugg si game bi ñu lay dugal doxal sa dox réglé la nga daan def ni ko jamra daan doxee dégg naa yu bëri bëri wax nga ko bul topp sa xol ak sa xel si di di demee lekk sa xel ta baña top sa xol loolu nak mënuma ko wona baña duggal ci si live bi parce que problème bima japp jàpp ne moom la Jamra wara régler moy problème mu kasso yi képp kuy même kilifa diiné yi sax ñom seen problème ne waratul nek problème mu Sonko ak ak ak ak Macky Sall Sonko ak Macky Sall ñun ñokoy régler kenn dootu si dugg man dootuma wo ben kilifa diiné nan ko waxal si li ñom war wara régler moy kasso yi nga xam ñu fay paqueté ay nit loolu àq ak yelleefu doomu aadama nanguwu ko ay doomu aadama nga tegale leen Sénégal rek la am Amérique latine yi nga xamante ni ay Guatemala ay Honduras ay El Salvador ay Mexico gi nga xamante dëkk yooyu ay dëkk wu kii lañ nu ñu koy waxee ay ay ay ay nit yu salte ñoo fa nekk sax nga xam ne ay criminel lañ sax paqueteetu ñu nit ñi dañ leen defal ay prisonniers jox leen ay lale tegale néeg bu am war a am quatre personnes am quatre personnes ku nekk ak sa lal ñoom loolu a dem kaas Jamra liggéeyam dëgg du sax génne nit ñi ci kaso yi parce que ku def dañ la war a tëj mais na fexe ba ñañ tëj ci kaso yi ñu ñu ñu ñu jox leen seen àq ak seen yelleef loolu la kilifa diine yi war a dox loolu la Jamra war a dox mais mais ku réew moo dem am na tëj ak tëj ku def ñu tëj la ku defut ñu bàyyi la nga ñibbi sa kër. mais Jamra sax pour man waru loolu sax warul nekk rôle dem di dox di médiation maki Sall bàyyil ñii Macky moo leen téye wala Ciss Ciss moo leen sistisme bu nekkee ne sistis bi ñoom bi ñuy wax ñoom sistis bi ñuy wax si Sénégal bu nekkee ñoom nee nañ sistis am na nañ dem d' abord sis insistis muy commencé insistis bi ñuy def prisonniers yi si biir kaso yi. parce que prisonniers yi si biir kaso yi boo leen joxee seen àq ak seen yelleef si biir kaso yi ñoom soxlawuñ nga leen di defal médiation pour Macky bàyyi leen. loolu laay woo Mame Makhtar Diambra di si woo suñu kilifa dine kantaana suñu problème ak maki Sall ak le président Ousmane loolu ñun ñoo koy réglé te ñun xam nañ ñu koy réglé. waaw bu ci kenn duggu ñun dañ ko régler dem di attaquer cortège Ousmane Sonko presse bi yeen tay ngeen xey Baye Fall ya nga reyante fe ak sàmm yi di ray ay Baye Fall ñom ñuy wante ñi naan danañ ray peli ñi naan dañuy ray Baye Fall mais presse bu Sénégal manam li ngeen wara wax dafa bari mais du ngeen dem régler lool am ngeen lu ngeen bind am ngeen lu ngeen mais dedet Ousmane Sonko mom manam pour mu seen journaux jar man dama dama dama dama dama ban ban Sénégal la né mais billahi wallahi maa ngi koy maa ngi koy waat ci yàlla ne presse bu Sénégal yenn yenn presse du ñëpp nag ñeen nañu ñaan yàlla ba dëkk bi bu mu yënguwaat wallahi laa parce que gis nga bu dëkk bi yënguwaatee parce que sénégalais yi ñoom dañoo xam sénégalais yi dañoo xam lan moo xew te xam nañ li leen di manipuler te léegi mbir mi yaatu na. léegi village waa amatul booy town amatul kii àll ba la dëkk amatul ñëpp ñu ngi déglu ñu ngi xippi seen bët. ñu ngi gis ñu ngi xool ñu ngi si réseau ñu ngi ñu ngi si internet bu njëkk dañu daan ñaan xaalis pour pour pour pour pour euh, pour pour dépense wala ordonnance mais léegi dañ lay ñaan xaalis pour jënd téléphone pour mën a xam lu xew. mais yéen xoolal réew mi li fi nekk ngeen xëy Sonko garde corps yi Ousmane sonk yi ñoo attaqué waa APR yi duma leen dóor leen ñooñu dañ leen waroon a rey laa la wax. parce que ñooñu lu ñu def dañoo naroon a rey benn leader boo xam ne ay yaakaar yu bëree topp ci ñoom. Ah, ay milliers de milliers doomu aadama ñoo top ci kaw kaw kaw kaw kaw kaw Ousmane Sonko ñu xous rombu sécurité ba joti ci Sonko mais man dama ne sécurité président Ousmane Sonko sax man benn instant dama ne ñi vraiment glace giñ leen jox ñom glace googu lañ naan parce que ñun dañ leen di moytu lo ñu xam nañ ne gaay yi dañuy provoquer chaque jour ñu ngi leen wax ne moytu leen provocation yi nga xam ne état bi mu ngi koy def mais na da fay bëgg ëpp yow nga rombu gaay rombu sécurité bi lo xamanteni nit ñi ay ponkali nit nga rombu leen ba yegg ci Ousmane Sonko waa ji ñi waa ñi door dóor noonu dem nañ ba yegg si Ousmane Sonko taxaw si ay noppam naan ko violeur di ko saaga mais Ousmane Sonko mënta bañ baat boobu noonu parce que day politique kuy politique danañ la saaga danañ la xas yooyu yëpp yéen a koy def muy muñ nag mu doon ko mën a muñ Ousmane Sonko bañul ngeen di ko saaga de parce que bu ko doon bañ konoon bana politique découragé na bu yàgg parce que mooy kiñ gën a saaga si monde bi tey yéen bu ngeen demee ba yéen presse bi ngeen di nëbbu li Ousmane Sonko di def lu baax li mu réussir si si nemmeeku tour bi li nga xam ne réussir na ko du ngeen si bind du ngeen ko titre mais da ngeen a soxor kaay leen ma wax leen ne gis nga yàlla suul ker du ko teree du ko teree feeñ yàlla du nit ñun Amérique la ñu nekk am na ñu ne France am na ñu ne Angleterre am na ñu ne Suisse am na ñu ne itali am na ñu ne feneen gis nga presse yi bu ñu leen di seetaan booy benn CNN wala benn benn BBC da ngay si suuf muy bind Ousmane Sonko da doon dem di def tour nemmeeku tour Macky Sall yebal gendarmerie wala gendarmerie bu Sénégal dem attaquer cortège Ousmane Sonko ñu koy bind ci suuf presse presse yi la wax en anglais de xam nga yeen presse Sénégal woné woo leen lu xew mais presse yi nga xam ne ñu ngi internationaux yi nga xam Macky Sall pour mu jàllale fa ben publicité rek bi muy waaj a ñëw fii pour ñu présenter ko euh, euh, sang ko ba mu sét rek dafa fay ay millions yi millions yi Sénégal dollar bu bari la fay pour ñu defal ko publicité mais ay BBC ay CNN da ngay sétane tok sétane télé ni man man man xaw ma kañ la yagul matagul examen damaa toog rek di li xol lire ni seug ni rek gis Ousmane Sonko affaire bi di jall ci souf oh fima tok sama xol dafa sedd kuy parce que dama ne alhamdulilahi rabbil alamin parce que Ousmane Sonko defal ngeen ko promotion bo xam da ci warono fay ay milliards yu bari ndax bu ngeen demee ba yeen presse Sénégal ngeen tok di di saga, di woné lu bonne di organiser ay débat saaga Ousmane Sonko coalition saaga Ousmane Sonko seen télé yi seen patron de euh, euh, seen patron de presse yi di leen di leen di leen di leen di leen di leen mosal ñu xam ne ñu leen di mosalee fekk boobu média yi nga xam ne Macky ñoom lay wër ñu ngi bind si seen titre yi booy seetaan télé si suuf yéen ñu nekk diaspora di leen bàyyi xel lool BBC euh, CNN Al Jazeera dañuy bind si suuf actualité Sénégal actualité bii xew Sénégal dañ koy bind si suuf Ousmane Sonko nii nii te nag ñun du ñu fende dañuy tiitrer li am parce que ñoom ñëpp ñu ngi si réseaux sociaux yi gis nga xam nga la laa bëgg ngeen comprendre gis nga même Amérique fii live bi may def nii fu mu nii ñu ngi koy déglu en wolof ndax sécurité seen sécurité fi ñu yegg fi jamono yegg laa ne fi àdduna yegg fu mu nii boo demoon fii hôpital di faju man xam nga wolof laa bu ma yeggee ñu ne ma ndax euh, dégg nga anglais pour ma mën a wax li ma li ma li ma bëgg a wax dama leen déedéet dégguma anglais wolof laa dégg dañuy woo kenn ku déggoo wolof docteur bi woo ko ne kii lii moo koy métti lii moo koy métti docteur bi di ko tekkil ba mu jeex tàkk wala ñu taar rojo rojo teg benn bouton rek bës lépp lu ma wax mu mu wax leen ko ci si si en anglais adduna foofu la toll Macky loolu la comprendre yéen suñu personnalistes yi comprendre leen loolu moo tax suul ker du ko teree feeñ Ousmane Sonko wallaahi lancim dafay dem fu mu jëm dana fa yegg léegi nag maa ngi ñëw daaneel live bi di wax ne euh, gis naa gars yu bari ñu ngi jox patriotes yi galaas <laughs> si convocation le président Ousmane Sonko bi voilà ku nekk ak ni nga ko gisee man nag am na am na am na am na ñu bëri bokkuma ak ñoom gis-gis ah, am na ñu bëri eh, nee nañ na wuyu ji nañ bàyyi dëkk bi dal gars yi bu ñu demee mun nañ ko pro mun nañ ko provoqué bu gars yi demee mun nañ leen provoqué sànni fa grenade rek mu seen voilà maa ngi seetaan sama frère sama grand eh, Babacar eh, Sadif Diop sànq mu ngi ci def live bu am solo wax na lu am solo tamit comme ni ko Amadou Ba waxee mais dama leen di laaj rek man question bi may posé gars yi ñoom ñëpp patriote yëpp nag maa leen koy posé mooy ban 6-6 mooy woo Ousmane Sonko bu New York wala bu France. wala justice bu Sénégal mooy woo Ousmane Sonko <laughs> moom la Ousmane Sonko war a wuyu ji ban justice ban ban ban ban ban ban ban ban magistrat xaw ma ban juge bi nu mu tudd sax ban juge mooy woo Ousmane Sonko ndax juge bi nga xamante ni moom moo defoon si page Facebook di di jàppale Adji Sarr di support Macky Sall juge boobu la Ousmane Sonko war a wuyu ji wallahi laa loolu mata baye bàyyi xel question la nak après nga répondre ko ci commentaire ben juge moy wo Ousmane Sonko loolu lu ngeen mata baye xel la yeen ñep voilà légui nak man nak leen rek lay bañ ñu baye ba jaan ji rombu ñu top ci di door. man lo bañu problème jaan ji rombu ñu top ci di door. te bugguma man ñu yegg fofu deug la nak Ousmane Sonko dana wax dana def conférence de presse dana wax ak sénégalais yi voilà dana wax ak sénégalais loolu moom Ousmane Sonko mois de mars génn na ñetti yoon ñeenti yoon xaw ma génn wax ak ñun mais terewutoon nit ñi di wax mais ñun ñi ñuy jàkkaarloo dañ leen a xam nga di ki nga xam loolu mooy mbir mi. voilà merci beaucoup euh, euh, Cheikhouna lii naa sa commandé Cheikhouna euh, Mbacké maa ngi lay ziar maanaam juge yooyu lañ war a wuyu ji quoi. gis nga El Malik Ndiaye dafa yor ben jikko bo xamne neex na ma El Malik day taxaw ne dañuy don candidat for force gis nga dañuy don candidat for force dafa am fu koy tek ngeen yaakaar da ko tek si masla <laughs> tegu ko si masla El Malik du taxaw fi di def live Facebook am wala mu dem tele nan ñu naan ñu euh, xe dem leen ngeen xeex Macky Sall Macky Sall fo ngeen xeex ak mom dedet parce que mom gennu ci exemple lay joxe rek exemple lay joxe rek voilà Sonko du génn naan ñu génn leen ngeen xeex ñu ngi may gunge ñëw leen gunge woon ñu xeex déedéet faw dégg-dégg bi sori mais dama leen di wax benn affaire dañoo jàkkaarloo ku saay-saay Sonko du ka Khalifa du yi procès yi bokkul mbir yi bokkul mais yéen a ngi jox patriote yi galaas boo xam ne bis bu ko patriote yi naanee barke alxuraani karim waxuma Macky sa bi moom ñun ñëpp am nañ dossier bi dafa nekk dossier boo xam ne sis rek yoratu ko ñëpp ay preuve fii koo fi fëgg ne ko dossier Adji Sarr ak Ousmane mu génne la lam si am Tak amna lu bari Sonko jot na ko dossier bi 66 six mënu si Ousmane Sonko loolu ñëpp xamnañ ko Ousmane Sonko tamit toglo nañu suñu kër lan mo tax mu toglo ñu suñu kër wax ji lan moy lan moy sensu message bi mu doon joxe ne bu len ma top lan moy sensu message bi man dama man man gisewuma euh, sensu message bi ne Sonko daf ñu toglo suñu kër pour ñu tok suñu kër man gisewuma sens bi fofu amana ku nekk ak nu koy lan la Ousmane Macky Sall war a mën a jàppee Ousmane Sonko gisuma ko man du dossier Adji saar bii mais dossier politique la mais politique da nga koy répondre si politique. politique da koy répondre da ngay dem répondre ci politique dossier politique la si politique lañ koy wuyu. man loolu laa gëm damaa gëm ne gis nga Idriss Seck bi ko Abdoulaye Wade convoqué bu ko dossier boobu dossier politique Idriss Seck dafa def appel woo ay mbokkam yëpp. kérok bu fa nit dee wala benen affaire eh, eh, ñom ñaan ñëpp Idrissa Seck ak Ablaye wad ñom ñom ñom ñaan ñëpp dañuy am problème Ablaye wad da ko bëgg a jaar ko yoon jaay ko doole Idrissa Seck ay mbokam ñu utiliser si ne Idrissa dafa def sen appel yu ñu koy xawma nan man mo bi sax mënu mako wax ndax bëgguma ko xam ndax Sénégal rek le le mo bobu am appel xawma nak lu ngeen ko mëna a légui Ousmane Sonko dem na di uyu ci mbolo top na ko ay militant wam yoo ni 2014 bu Ousmane Sonko di jog ñaari nit ko don top ñet lam bëggon moy mbolo top ko ci limi wote muy deug mbolo mom top ko nak ndax dañ koy seetaan ndax Sonko mom momati mbolo mom galas ki ngeen di jox patriote yi baxna de nañu dem ak dal nañu tok régler normal dal yëpp d'accord na waye kan lañi kan la kan togal pour dal bu sisis 66 sis rek la mbiru Adji sar Ousmane Sonko bu don problème bob kese problème bob rek mo am. Ousmane Sonko tal otom dem uyu sisis Ciss Ciss bàyyi Ousmane Sonko mu ñibi kërëm mais ñom doxale wuñ nonu mois de mars Ousmane Sonko waxuñu toog leen de dafa xamne ñi dañu prêt pour sag faagaagal ko dafa prêt pour ko mu dem université dem fu bari dem ci place goudi sax gennako di doxantu PC bopam won Macky Sall may kan mom Ousmane Sonko de parce que dafa xam fu mu jëm mom moo ñu ba def ci ñom ba def ci ñun li ne si mom mo nek ci ñun fu mu toll fu toll ñun ñi ñëpp ko si jël Ousmane Sonko la ko si jël lool moko def ci ñun ñun ñëpp mais nak man de limay wax glace gi ma bëgg ñi diko jox patriote yi mooy groupe whatsapp bi bu leen fa kenn duggal di leen wax na leen def leen groupe ngeen dem tal tal diw tal fi tal fi ta nek diaspora la wax de ta nek diaspora bu leen ko kenn lo lool mo dama sé d'accord 100% ak gaay parce que ñi leen koy lo ñu ngi diaspora ba paré yeen ngeen dem kaso ñom ñu ne nek seen liguey man li may wax ne xam naa si dara parce que nekk naa Sénégal nit woo ma di ma wax ay wax yoo xamante nii parce que kooku la mu bëggoon man xam naa li mu bëggoon tëj lu ma la bëggoon du ma am preuve dafa am loo xam ne dossier boo xam ne mënoo ko amal avocat mënoo ko amal lay ku ma fekk ma dajale ay nit di jënd essence di jënd pétrole di di woo nit ñi di jënd ay almet jox nit ñi leen dem leen taal leen taal leen fii may wax bu ma demee jàkkaarloo bi lan laay wax mënu ma si dem ak suñu xel li am solo mooy nañ dem ak xel ñun ñëpp xam nañ nu ñuy xeexee fii ñun ñëpp ay xale lañ Sénégal di xeex di sàcc mango di football nawetaan di def lépp lépp luy foo xam nañ ko kon utiliser leen seen xel yooyu danga daan xeexal nit sax koo xam ne yaa ko man nga ne ko mu ne koo xam ne moo la man mu ne la pine naa la nga ne ko topp topp naa la jiitu jiitu ma jiitu ma mu jiitu la dox nga for xeer fëgg ko ko mu fëgg ko si bopp mu war da nga wëññee ko daw dem seen kër ndax mu la ëpp doole façon xeex bu ne xam nañ ko mais quant à toog diaspora jël booy utiliser seen gëm gi ñu gëm gi ñu gëm Ousmane Sonko jël xaaliss dugalal leen fekk bobu état bi moy bëgg ay preuve ñun comprendre nañ état da fay bëgg ay preuve ci sonko terroriste la sonko moy tal dëkk bi jël ay boy ay boy yu melni Cheikh an nga xamne bo boo leen di door marto mom ci sonko ngay jaar bo leen bëgg ré ci sonko ngay jaar nga ne leen euh, euh, euh, nga ne ko mëna la mëna la outal preuve mëna la jappalo ay boy déglu lu baax li may wax déglu leen baax li may wax yeen patriote gaay dañuy jaay combat bi léeg-léeg état mëna la outal ay boy yu ñu tiyé mën naa la utal ay preuve état yëkkati ay millions yónnee la ko yow nga nekk diaspora barke alxuraan nga nekk diaspora état yónnee la xaalis nga jël booy yi dugal leen si ay groupe whatsapp envoyé leen xaalis par Wave par Orange Money par Orange état daal di am reçu yooyu am nit ñooñu am fa xaalis bi jaar ñu jël booy yi yóbbu kaso li may wax waxantuwuma damaa nekk Sénégal si xeex bi nit woo ma di ma dugal si bëgg ma dugal si yoo xam ne ko man ñëwuma fi pour xeexal nit dama ñëw pour xeexal sama réew sama leader Ousmane Sonko te kenn du ma manipuler moo tax li gars yi di wax benn côté ñoom Amadou Ba ak ñoom Babacar Sadikh euh, euh, Top euh, kii Diop dafa am solo trop ngeen bàyyi ko xel ci côté boobu noonu mais nag terewul ñu ne leen yéen seen moomeel la Ousmane Sonko xeex bu jotee dañuy xeex bu jàmmaarloo jotee dañuy jàmmaarloo si kaw ñu tooñ ñu bañal ñu li nga xam ne moo ñun suñu suñu suñu suñu kii la léegi nag yéen ñu ne si koñ yi gox-goxaan yi ne si raison yi ne si ruq yi kenn ku nekk xam ngeen naka ngeen di xeexee ak seen leader ba kenn bu mu ko éliminer loolu mooy dëgg dëgg réalité léegi nag euh, gars yi bàyyi bëgg dagg laay bi mais waxtaan bi dafa neex ba nga xamante ni bëgguma ko bëgguma ko li li ma bëgg a wax dafa bari trop parce que wax dëgg dafa neex waaw non dëkk bi weesu na maal sëñ bi musaa léegi nag seen leader a ngi noonu suñu leader a ngi noonu moom waxagul de waaye ñun de ba duñ noppi duñ mas a noppi billaay wallaay duñu mas a noppi buñ nokki de nopi rek tok ak kiñ jàkkaarloo Macky Sall gis nga Rwanda ge ñi ciow ni di jël référence ci mom dafa am ay bakkan yu fa rot waye bu su bakkan bi di rot na na rot ci lu jar na rot ci deug buñu dagg sa cër nañ dagg sa cër si deug waaw buñ lay ray nañ la ray ci deug ñun ci deug dong lañuy xex deug dong lañuy xex liñuy xex moy pour Sénégal Ousmane Sonko dafa ñëw ne li ñëpp bokku ñëpp jot si bi nek si bir si bir réew ku bay do ku bay kat xamul la muy njëriñu bay bi Sénégal hôpital yi feebar suufi ñu diko nangu buñ la tëjee bo amul blanc lo yow ci kasso bi ngay dé do def dara police wala gendarmerie ñëw taxaw sa wet ne la dama lay tej te nim ko waxee na la koy defee procureur wala sis conv jox la convocation direct nga ñëw ñu def la mandat dépôt do jaar police do jaar tir jaar police do jaar fenen te normalement pour ñu tej la kasso da nga wara jaar si organe yu bare bare bare pour nga yegg kaso même même procureur bala mo jël dossier bi diko ko jox juge wala mu lay def mandat dépôt dafa wara dafa dafa dafa am gis nga Sénégal Sénégal ñun ñi yow man li may wax nii sax du sax jàng du école nit ñi dañoo rey si ay affaire wu ay ay article nangam nangam nangam nangam nangam loo gis dafa am ay ay ay kii ay bànqaas yu koy téye même police bu jàppee di jox procureur procureur wala jox juge dafa war a amaat ñeneen ñu war a saytu loolu balaa ñu ko jox juge balaa moo yegg si war na amaat keneen koo xam ne du nekk police wala du nekk gendarmerie boo xam ne dafa war a jaaraat si dossier boobu noonu motax tax kaso yi fees del pourtant buñ doxé won ni wara doxé a yi du massa fess parce que ñu bari duñ dem kaso mais da ngay police da lay jàpp léegi doo def dara ñu yobul la jox la procureur procureur yobul la defeer do le mandat dépôt ñu faté la fa ñu né dossier bi dafa rër ñu xey génné la nga ñak sa place ñak sa liggé li ne ci réew mi kenn mënu ko wax 66 bobu mo war moom Ousmane Sonko wara wuyu ci suba 66 supporter Adji Sarr xawma suba xawma astaghfirullah ngeen bal ma ma ngi jégalu du suba euh, xawma khamis lañ wax voilà mais ak lu mënti xew yàlla na si jàmm rek top jàmm dong la ñuy ñaan mais jàmmi Sénégal lenn kessa la suñu Ousmane Sonko nañ ñuko bayil suñu nemmeeku tour dañ koy yeggali ci suñu focus 2024 dañ koy yeggali ba 2024 suñu outeli xalé yi carte dañ koy outeli xalé yi carte suñu bindu jot xalé yi dem uti carte électeur dañuy outeli xalé yi carte électeur woot jot ñu wooteel Ousmane Sonko mu gagné réew mi te kenn du sàcc suñuy carte ñun loolu mooy suñu combat Macky dafa comprendre ak ñi mu àndal Ousmane Sonko dugg gi mu dugg si àll bi gis nga billahi wallahi Ousmane Sonko bu duggee si àll bi ba dajal dëkk yëpp bu ñibbee toog këram toog këram laa la wax de Macky Sall moo la gën a xam ne population Sénégal danañ jóg génn ko pale ba parce que nit ñi dañuy xam lu xew ñi xamuloon dañuy xam lu xew te Ousmane Sonko du wax jóg leen top len ma du len wax ne len jog len ngeen dem genn Macky Sall palais bi parce que dañuy comprendre lu rew mi di dund ñom ci metit ne xamne yalla teggu len ko Macky mo len ko tek te lool commencé na am ndax dekk yi Ousmane Sonko duggu dekk dekk yi ci àll bi dekk yoy la Macky Sall doon jox 80000 2000 francs tichet duggal len ci ay car ñoñu tay fofu la Ousmane Sonko commencé dugg motax limay wax patriote yi moy fu mu jaar continue len lam doon def yeexal na diwaanu mburu mais bu leen taxaw de continuer leen fu mu war a ñëw continuer leen Macky problème yëpp nemmeeku tur bi kese kese kese moo waral lii problème de convocation bi yëg provocation quarante cinq milliards la ñu sàcc jëndee ko ay armes armes yooyu fan la waroon dem ñan lañ ko war a jox fan lañ ko waroon dugal ana quarante cinq milliards ñan ñoo ko lekk loolu bokk na si li nga xam ne moo xew yëpp Ousmane Sonko ko waral wallaay bu Ousmane Sonko judduwutoon si réew mi yii ngeen di dégg yëpp do xew te leen rek la wax li ñëpp bokk ñëpp jot si ay sëriñ di woote di yónni ay sëriñ di yónni ay nit këram ay kilifa kilifa diine kilifa aada kilifa lu ne di ko di ko di Macky mooy ñaan de Macky si ñaan si ñaan chaque la topp la la nekk chaque jour Sonko mooy bañ ndax xam na fi mu téye te mu am confiance am courage bo do xol sax gis ci mom ak titangi xam la len di wax 2024 fi ñu jëm bu yaakar gi tass kan mo wara tass yaakar gi yeen ñi don ay patriote kan mo wara tass yaakar gi yeen ñi ku war ku mëna ñaka tass yaakar gi yeen way du mom de xam nga kañ ngeen di wax sonku sonku bu len tass bu tass suñu yaakar moy mu jot nga xamne jot na mais kan mo mëna tass yaakar moy yeen ñi don ay patriote tass yaakar moy ngeen tok seen kër yi makki di def ngeen naan ko demal wuyu ci na demal wuyu ji nank ñibi wat sa kër demal nuyu wuyu ñank delu ji wat loolu mooy wax ji wax ji mooy kan moo kan moo bëgg a tas suñu yaakaar ñun Macky moo bëgg a tas suñu yaakaar ak ay kilifa yu nekk si ginnaaw Macky ay kilifa diine yu mag yu ne si ginnaaw ki du ñëpp nag bëgg tas yaakaaru ndaw ñi te ñoom seen yaakaar ak seen jaar-jaar wëy na ndax ñoom ñoo lajji Mamadou Dia ak Cheikh Anta Diop bindal ñu ay livre ñu di ko liir dootu liir bi day das jeex na dootu fi nekk di liir benn livre naan moo fi jaar moo fi def lii dootu jeex na gasi abana dañuy focus ci 2024 dem def nemmeeku tour Ousmane Sonko ñu yóbbu ko ci palais bi boy yeen lay wax de gis nga li suñu abonné la continue leen ci combat bi nga xamné yeen nga ci nek bu leen ci gif bu leen ci reclé joxe leen ci sen bakkan bi ku ci dé aljana nga jëm ña ci dee raw nañ parce que ñooñu xéxal nañ Sénégal ba dé yeen ñi nek diaspora yor xaalis yi doon ay millionnaire ak milliardaire lu ngeen mënti doon dimbalé leen leen li ngeen leen man moy xolal bu leen xaar fi sax ay ne ay ay dayalé xaalis jël leen li ngeen am muy ay auto muy xaalis alal bu ngeen am te lew doom lu ngeen gis ne nemmeeku tuur bi laaj na ko ngir yónnee ko bu leen si sax tàggu kenn wala ma sàmm wala ma demba toog nag sa suruxu naan léeg-léeg nit woom waa Cheikh Hann xanaa amu leen lu ngeen di cotiser fan yii nii bu ngeen amee yenn cotisation rek yëgal ma ko lu ngeen may loolu dafa jar tàggu jaru ko fii loo fi yónnee mu yegg loo fi joxe mu dem na leew rek tabarke bul sax soxla wut parce soxla soxlawul sax ngay dem di ko jox Ousmane Sonko wala ngay dem naan naa gis Sonko yow kay xam nga fu dëkk ba ñu war a dem xoolal dëkk boobu lañ manqué si nemmeeku bi defal loolu bu dee rojal la lijjanti ko bu nekkee ne xale yi amuñu paas wala mun nga jël benn L200 jox leen ñu dugg def def dugg si village def porte à porte yaatal yaatal communication bi defal loolu. affaire bi soxlawul gis Sonko wala gis benn jomaay wala di kii di yónnee wala nga may woo naan ma dama bëgg a participer si lii ak yi kan xamul léegi dara jafeetul lu waay bëgg a def mën nga koo def bu dee lu baax rek moo la tax a jóg. kon gars yi maa ngi dagg waxtaanu fii yemale ko fi di leen wax ne leen encore une fois. gars yi ñu ngi noonu ñoom euh, sama gars yi gis naa leen dégg naa leen <laughs> waaye nag ban siis siis la Ousmane Sonko di wuyu loolu la bàyyi leen ko xel de siis bi nga xamante ni moo moo jëloon ci Facebook def fa Adji Sarr <laughs> voilà Ousmane Sonko dafa dem gunge Barthélémy Dias ñaari yoon. Ousmane Sonko de Ousmane Sonko mii ak ñu gars yi waa Pastef yi dañoo demoon gunge ji Barthélémy Dias ñaari ñu dem wuyu ji yëpp dañ ko dem gunge ji ko dem këram soutenir ko <laughs> ñu ne ñu ñun toog leen Ousmane Sonko dugg ci otoom dem tribunal nànk ñibbiwaat Ousmane Sonko moomu lañ nañu nañ toog dana danañu wax lu danañu wax fu mu bëgg a def problème bi du problème mu ay dossier bi danañ ci tëj Sonko problème de politique la nañuy wax si politique bu ñu wax si justice que justice amu fii man lo lay bañe a dégg ay dossier bi kenn mënu see tëj Sonko loolu ñun xalé yu ndaw yi sax xam nañ ko mais sistis ban sistis la Sonko di wuyu ji si politique no no ko mëna waxe waxee baat bi sax mënu mako prononcer prononcé ban justice la Ousmane Sonko di wuyu ji benn politicien mo Ousmane Sonko bu len faté loolu ap politicien bu mag moy laaj mo wo Ousmane Sonko ne ko wuyu si ma léralal ma li ma la tuumaal man ak sama dom Adji sar liñ la tuumaal kay nga wedd tuuma manam <laughs> <laughs> waaw kan kan nah, man damay déglu patron di ñoom dañu comme ni nga ko waxee ñoom ñoom ñi def commentaire boo xamante ni du sax comprendre kan mooy woo Ousmane Sonko kan moo koy woo benn politicien benn siis boo xam ne politicien la moo woo Ousmane Sonko ne ko kaay dossier bi nga xam ne man maa ko créé man ak sama doom Adji Sarr kaay nga wax si yow patriote bi nga ne ma toogal sa kër Ousmane Sonko dem wuy ji benn politicien booy bu yeggee lu mu ko def foofu baax na yow ñoo xam ne bañ jëlee Ousmane Sonko rek utal nañ ko Sambour buñ ko war a dugal peinture ko peinture boo xam ne bu fa duggee nooyi ko ñoo xam ne Ousmane Sonko temps bi mu nekk këram si mois de mars bi jël nañ ay oto ay appareil samp ko fa pour du xool li mu nekkee biir saalam li muy li mu nekkee ak ay soxnaam ñu am ay film si moom ñu la Ousmane Sonko di wuyu ci yéen a ngi may dégg mu leen jaral ñi nga xamante ne Ousmane Sonko dem nañ buntu këram di desserrer ay otoom otom ñooñu la Ousmane Sonko di wuyu ci juge politicien wala Ousmane Sonko di wuyu ci juge bi nga xam ne Ousmane Sonko. dañoo rey ay militants mu bañ deful benn enquête deful benn deful benn appel pour loolu leer juste boobu moo Ousmane Sonko politicien boobu moo Ousmane Sonko. est-ce que est-ce que dégg ngeen li may wax bu baax kon ay politiciens ñoo ko woo léegi nag comme que si game politique lañ nekk dañ leen di wuyu si game politique gars yi asalaamaaleykum wa rahmatullah